شهر وفي سفر وحماني على ماني ما نفس والصبر سلام الذي في كل شهر وفي سفر حماني على jërëjëf sëñ Mouhtala euh, bëgg Bamba di géwélu Serigne Bamba Khadim Rassoul ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu rafet boobu nga ñu defal euh, ci euh, ki nga xamante ne nii rek moo di sëriñ Mamor ibnu sëriñ fàllu Mbacké ci noonee nag lañuy ñuy continuer liggéey bi di ko woyal ñoo ngi nii ci buntu kër sëñ Sidil Maxtaar ci penc mi. ربي بما يزرعون dogon ko nag dem gi wolof nasaraan jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur u télévision ma Fatih Al Bichri jërëjëf Serigne Khadim euh, ci image yu am solo yooyu nga xam ne wan nga ñu ko ñi ngi fii ci biir kër Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mu mel ne moom mi toogee jotaayub Cheikhul Khadim tey mbooloo mi bàyyi ko nañu fu nekk ci àdduna ci ay gox yu fasanti ko fekk si ko ngir ki mu toogee jotaayam di Serigne Touba Khadim Rasoul moo noon bis bi koo xam ne sama mbég sa mbéga na nga ma ca sant la yàlla waaye sëriñ Sidi bi mu toogee di sëriñ Touba gis ngeen ni mu ko yaatale jàmbaaram ji sëriñ Bachirou moom sëriñ Abdoul Khadir gis ngeen li ngeen xamante ne bii seetaan ngeen ko ci seen télévision ma Fatimal Bichri di ay wàccaayu màggal mu ànd ko ak commission d'organisation bi Cheikh Abdou Bali dégg nga ak ñi mu àndal liggéey bi ñëpp bëgguma dugg ci lim waaye matal nañ mission bi nga xam ne Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar dénkoon nañ leen. waaye télévision Mafatihul Bichri wan na leen loolee léppit waaye tey nag génn bu njëkkub sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar moom lañu leen wan nii taxaw nag ci buntu keesam ngir waxtaan ak yéen waaye sëñ Xaadim ah, maa ngi taxaw ak jàngkatu Cheikh Sidil Mokhtar di sëriñ Malick Fall yaakaar naa ne jaaroon na fi daaw jaar fi daaw géej bi ñu jaaree ak sëriñ bi bi noppi moo ñu jàngal xasida yi eh, yëkkatil ñu mun naa wiiru bun yaana bu Cheikh Mamadou Lamine Baara mi nga xam ne bàyyi Cheikh Sidil Mokhtar moo ko bindoon moom moo ko yëkkati ci kanamu Cheikh Sidil Mokhtar kon ñu jox ko mu yëkkatil ñu ci ay bayit su ko defee sëñ sëñ xaadim ñu doog a wéyale liggéey bi yaqulu ahmadu lamin bun xadim xayri lanaami ahmad al aadi al karim حمدا لربي العالي الرحمن من جاء بالإسلام والإيمان ثم الصلاة على الأدنان من جاد بالإيمان والإحسان من فضله في المرسلين ثبتا وبكتاب العزيز خلعتا وآل علي تقى وصحبي وكل من قد جاء مؤمنا بي هذا وين اليوم سوء توسلي بسور القرآن وهو منسلي سميت منور البنيان معلم الجوال والأميان سميت منور البنيان معلم الجوال والأميان سميت منور البنيان معلم الجوال والأميان ووالد الخديم قبل منا والي فوق كل بنيان بنا وابلنا ما نرتجي فيه فأنت عالم بما نخفي وابل من أفيز ساني ساما إيمان ولسان الإسلام واغفر سنوبنا ولربا من قد قدوا منا وكتبا ثم صلاة وسلام سرمدا على سبي مسلمنا مدى وآلي آل تقى وسبي وكل من قد جاء مؤمنا بي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dogon ko nag dem gi wolof nasaraan jërëjëf Serigne Moxtada géwélu Serigne Touba wax ji am na solo image yi am na solo ah nee naa la nag gis sëñ Sidi Moxtaar yombul ndax moom mooy xalif général kulli murit ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér itam téléspectateur mu Fatihul Bichri ni ngeen ko soxlaa rek te bëggee ko noonu équipe bi nga xam ne moo nekk Touba noonu lañ leen koy joxe ba tax na Serigne Moxtada laaj na ki nga xamante ne nii moo di jàngkatu euh, sëñ Sidi Maxtaar gis nga xéwal yi nga xamante ne nii it def na ko muy participation ci bés bi man itam euh, damaa fas yéenee jàkkaarloog sama yaabooy ma laaj ko ziar bi nan la demee ak rang bi nan la demee ak fan la jóge màggal si yaabooy maa ngi lay ziar. yàlla yàlla loolu ziar maa ngi doon sant yàlla di juddu Seydina Mohamed di ñaanal samay waajur yàlla ñu dëkk àjjana di ñaanal nag sëriñ na fi yàlla yàggaloo yal na fi yàgg te wér màggal gi macha allah kontaan nañu ni ñu kontaanee sunu xol sedd na guy ñu ko du ko dëkk ba bax ñi di am doo nekk waa kër bay Abdou Jigal bay Abdou Rasoul Jigal di ko ñaanal yal na su oyof si kawam at moo jot mu ñu fi tax a ñëw moom la ñuy seet di ko ziyaarte mu mu tax noo jóge bax ñi ba fii fi ñëw waaye macha allah sant yàlla alhamdulilah bi alamin li ñu doon seet lépp gis nañu ko di ko ñaanal nag yal na ko fi yàlla yal na fi yal na ko yàlla jéggal séer ma Cécile Moutar nag yal na fi yàlla bàyyi mi ta yàlla yokk ko wér ziar bi macha allah nee na métti na lool nag mais nag jar na ko bu ñu jàkkal nañu moom ñaanal nañu ñuy ñaan suñu borom ñaan gi bu ñu ñaanal yal na yal nañu ko yàlla nangul yal na yàlla nangul lépp daal barke Seydina Muhammad ci noonee nag sëñ Xaadim la ñuy wéyale liggéey bi dinañ xoolaat ñenn ci ay maire wala ñenn ci ay soxna ñu mën a xool rek nañ nan lañ yëgee ziar bi nan lañ gisee ziar bi. waaw sama sama jëwrin Mourtala indil na ma sama benn maman wax dëgg yàlla yaa maa ngi lay ziar. waaw yal na yàlla nangu ziar gi. màggal gi moom dox na ni ñu ko bëggee woon yàlla defal nu ko. ubbil ñu xéewal may ñu wér. waaw ndax sëñ bi moom ñun ba mu doon doonul xalifa moog ñu ne ko woon. waaw sunu daayira lañ fi daan indi bu duun mu di nuñ toog di nu ñaanal. ñu itam ñu ñaanal ko waaw. Ah, bi nga duggee ba jàkkaarloog sëñ di Maxtaar lan nga yëg. lan ma yëg sama yaram yëpp dafa sedd guy sama yaram di daw waaw ndax man moom rek laa xam waaw jërëjëf Serigne Touba mu mel ni nag ñi duggoon ziar ñëpp seen xol tooy na xëy na du sëñ xaadim image yëpp la leen mën a wan ndax dina am lu ndaw rek lu ko ci rëcc mais góor ñaa ngi génn di jooy seen xol a fees jigéen ñaa ngi génn di jooy seen xol a fees lii liggéeyu Serigne Touba rek la kon dañu naan jërëjëfe sëriñ Touba salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar